les bourses de sécurité familiale ont fini de transformer l'environnement de beaucoup de Sénégalais. J'ouvre une parenthèse pour rendre hommage aux jeunes que nous voyons tout le temps dans les rues, nettoyer les rues de Dakar et des autres localités. Il fut quelque temps, aucun jeune, benn xale nanguwul woon taxaw ci mbedd naan da ngay bale. Aujourd'hui muy góor muy jigéen muy mag mu ndaw vous avez même des diplômés qui font ce travail. ba ñun da ngay yor benn mouchoir boo dee nit ku conscient da ngay yor benn mouchoir foo ko sànni ci biir Dakar doo ko am te li valable fii valable na dans beaucoup de villes du Sénégal donc ces jeunes nous leur devons respect nous leur devons considération nous leur devons à la limite même une admiration parce que transformer nañu la mentalité des jeunes sénégalais c'est grâce à ces résultats que nos partenaires au développement nous font confiance. Deux exemples, les deux derniers exemples. Le Fonds monétaire international, plus de 1000 milliards investis au Sénégal. L'USAID, qui a signé tout récemment, hier ou avant-hier, un accord avec le Sénégal par le biais du ministère des Finances, notre frère et ami Moustapha Ba, que nous saluons et que nous remercions également au passage. Je considère donc que tous ceux qui s'attaquent à notre pays, qui tentent de le déstabiliser, qui le présentent comme une démocratie en déclin pour créer le doute chez les investisseurs, sont des ennemis de notre pays. Des traîtres à la cause nationale, un chat, il faut l'appeler chat. Car nos intérêts personnels, donc égoïstes, ne en aucun cas primer sur l'intérêt national am na loo xam Sénégal nga ñemee taxaw di ko wax dem farandi si kër dans d'autres pays qu'on dit démocratique boo ko fa waxoon doo ñibbi devant l'intérêt national devant l'intérêt national benn benn doomu Sénégal benn doomu askan wi warul jéem a jël say intérêt di ko teg ci devant l'intérêt national et il faut se poser des questions Ceux-là qui nous donnent des leçons de morale c'est qui lu ñuy def lu ñuy liggéey lu leen di dundal pour leen di jox ay quatre-quatre pour leen jox ay sièges yu ñuy fonctionner pour leen di jox xaalis bu ñu voyager à travers le monde voilà les bonnes questions qu'il faut se poser c'est la raison pour laquelle ils ne nous représentent pas ils sont là pour défendre des intérêts de forces occultes ku mën a taxaw di ŋàññi sa réew pour mu daanu ku mën a taxaw di wax ni nañu daganal góor jigéen au Sénégal ku mën a taxaw di wax ni nañu légaliser ku yàmbaa au Sénégal mes chers amis kooku représenté wul le Sénégal défendre wul Sénégal mais il défend des forces yoo ñemewul ñu tudd nous le disons à haute et intelligible voix tout Sénégalais qui a ce comportement est un traître de la cause nationale Certains reprochent à notre pays de s'endetter. Mais quel est le pays au monde qui ne s'endette pas? Je pose la question aux économistes. Et si le Sénégal s'endette, continue à s'endetter et bénéficie de la confiance de nos partenaires, c'est parce que le pays est stable, il est sûr, il est bien tenu, il est bien gouverné. parce que kuy lebal nit te du fay doo ko lebalaat kuy def saa boo lebee ju lebal la c'est parce que lañ lay lebal yaa ngi koy dugal fi mu war a fay ay bor c'est comme ça qu'on développe un pays nous sommes en démocratie et en bon démocrate nous devons toujours nous battre pour que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous puissent tous les jours dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous et dire également pourquoi ils ne sont pas d'accord avec nous démocratie du ko contre nga rey ko démocratie du ko la ko duggee liquider ko démocratie mooy ki la contre nga jox ko baat jox ko nopp mu wax la pourquoi il n'est pas d'accord xëy na la mu lay wax ne d'accorduma ci njariñu askan bi ma ngi ci parce que y a pas un seul parti boo nga xam ñëpp baax ñëpp a mel ni ñu bëgg ñu mel il n'y a pas un seul parti boo nga xam ni kenn baaxu fa ça n'existe pas dans le monde ñoo bokk suuf seeg ndox mi ñoo bokk école yéeg réew mi ñooy tase ci stade yi ñooy tase ci làmb ji ñooy tase ci marché bi donc nañuy rafetal soow mi duggee ko jabi nañ rafetal soow mi duggee ko jabe xale yi ñu lu yaay jàmmooy marché mes chers compatriotes malgré ce bilan élogieux il reste beaucoup à faire pour atteindre ce que j'appelle le Sénégal de nos rêves Pour atteindre ce Sénégal de nos rêves, nous pensons qu'il est indispensable de combattre l'impunité, de combattre l'indiscipline, de combattre le gaspillage et le mauvais comportement de chacun d'entre nous. kenn ku nekk ci ñun bu doxee ba jant bi so mu tëdd këram xalaataat riwaayam li xale yi di wax dina gis ni def na lu mu warul def wax na lu mu warul woon a wax donc l'éducation d'abord jàpp naa ne foofu lay tàmbale quand je parle de gaspillage xam nga souvent booy wax ni dañ naan la fi réew mi toll mais interrogeons fan la réew mi toll ñu comprendre bu baax je n'ai jamais dit Sénégal amul jafe-jafe na leer mais chaque année nañu lim koor korite tabaski tamxarit gàmmu màggal cant céet ngénte dëj dem màkka nganale 31 décembre 24 décembre Saint-Valentin xale yu jigéen ñi ku la ci romb yére bi mu sol deux cent mille la dàll yi cent mille greffage trois cent mille portable un million mu naal dëkk bi dafa na xarit c'est ce que nous tous les jours terrain boo romb six après boo ñëwee fekk ñu def ko R plus tey ku bëgg a tukki agence boo dem pour am billet avion dañ naan la place yi fees na lu mu dee dee koo xëy di nga jël mille francs def ko ci sa téléphone di woote donc les difficultés que nous vivons perception bi maanaam li ñu ko dugale ci bopp nit mu ëpp ni ñu koy dundee waxuma ne amuñu jafe-jafe de ñun ñëpp dañ ko am. sama waa kër gi toog xam ne léeg-léeg damay xëy sax ne ah waa Liliane wala Coro réglé leen problème kër gi boobu ñëw donc nous avons tous des difficultés mais bu ñu ko yóbbu foo nga xam ne nekku fa parce que en vérité euh, Ismaïla ma gëlee ci ginnaaw moo ma daan wax ni benn góoram moo koy wax ni ñi soox ñëpp digg gi leen ñaar ñooy gën a véhiculer loolu ñi nga xam ni bëgg nañu tout le temps sénégalais yi di kaas naan gouvernement bi def fi dara def fi dara def fi dara te kenn du toog jàkkaarloo ak le gouvernement pour wax bilan ak ñi nga xam ne dañu seen poche mën nañu yor un million seen poche bu ma tasee ak Ndeye Sow dafa ne dafa may laaj paasu taxi li may tàmm lu ko chër mais day dëkk bi dafa metti de man yoruma dara te booba yaa ngi million sa poche sa compte bancaire boo fa demee ay millions moo fa nekk donc encore une fois il y a des mais bari nañ ci difficulté yoo nga xam ñoo ko teg suñu bopp nañ waxante dëgg parce que nit ki boo dul wax sa bopp dëgg wax ak dëgg pour nga avancer dina metti pourquoi bu tabaski jotee ci lañ jëm vous allez voir kenn ku nekk defee di war nga am xaru trois cent mille ou quatre cent mille lépp ay bor mu topp la pendant un an te pourtant du farata sëriñ si ngeen baal ma du ma man baru ba du ma wax ci domaine yooyu waaye xam naa ni du farata parce que nit ki lépp loo mënul yàlla teggil na la ko mais boo ko tegee sa bopp ba wëlbati ko wëlbati ko teg ko ca gouvernement bi nag